ayca ñu koy doon wax yéen kaay groupe des médias ak euh, euh, Sénégal euh, mujj naa nag jàkkaarloo Qatar def na ko defal na ko bagage ah Pape Mande mujj démb ñoom defal nañ ko bagage waaye nañ suñu bopp muy victoire bu njëkk ci équipe africaine yi nga xam ne ñoo représenté Afrique ci coupe du monde bi victoire bu njëkk la n'est-ce pas première victoire africaine ah xam nga premier tour bi ne daa méttoon ci Afrique parce que ñaari défaite la ñu am ak trois matchs déjà mu nekk tamit antam boo xam ne bon c' était pas du tout reluisant. Mm-hmm. mais comme Sénégal ubbi na baal bi espérons ko tey tamit ah, Tunisie dina def différence moom euh, ci kanamu Australie. non def nañ sarax bi ba pare sarax bi mooy Pays-Bas <laughs> sarax bi moo nekkoon noonu. moo léegi gis ay victoire ah, uh-huh. ba pare après li des day ñëw. Ah, noonu a yokk sarax alors mu di xam nga une victoire pour l'histoire kon nag da di guléet Euh, noonu la ñu ko tuddee euh, Qatar mi nga xam ne moo organisé nag moom mujj naa toog Qatar mi organisé. waaw euh, Qatar ni ko ni ko xale yi di waxee Qatar ñibbi na ñibbi na. Qatar ñibbi na Qatar. <laughs> dama jaaxal. Qatar ñibbi na Qatar. ils sont inspirés quoi <laughs> ils sont tellement inspirés les Sénégalais. <laughs> non Qatar moom na Qatar mais ma xam naa nag moom fii la ñuy moom stade ba di géey à moins que ñu lay ay nit. Ah, ñoo xam ne dañ ñëw di seetaan. on sait nag ñoom ñaari objectif lañu amoon. waaw. déjà premier objectif mooy en terme d'or bi mu wax. d'organisation ko franchement réussir nañ ko léegi nag. Euh, par rapport nag ak participation bi moom. tout le monde savait que ne Qatar rek euh, quoi qu'on puisse dire bokkaloon nag ci grande nation de football ya entre guillemets. Mm-hmm. waaw l'essentiel mooy participer nañ def nañ organisation bu am solo. peut-être dans l'avenir dinañu gën a defarwaat parce que. le fait que nga participer rek c'est loolu ndam ñoo ngi togg sax ñoo ngi togg. nga participer rek nga ne dem na donc yow nga participer coupe du monde. dafa ah, mais participer neex na waaye itam def différence bi tamit am na solo. Ah, c'est vrai mais participer xam ne jafe metti na pour nga participer. Hmm. yow nga fexe ba participer bokk. ah déjà xam nga moom nga moom na euh, nag moom mu mën a nag participer sans organiser. mu participer sans organiser. <laughs> waaw waaw ñëw kon fexe ba. <laughs> waa Qatar ñoo moom loolu en tout lu mu ci mën di doon jàppale ne euh, sunu gaynde nag am na nañu dam te bu ñu fàttali ne kon final la ñuy joué mardi ah. final contre Équateur ndax nag boobu moom da ngay gañe jàll ñu gañe la nga toog machine yi sax ñun jiguñu ah, ñun daal gañe dem wala ñu gañe ñu ñu ñibbi si comme Qatar nu mu ñibbee Qatar ñu ñu ñibbi ci Sénégal en tout cas loolu la yéen kaay bi dikk euh, rassemblement euh, interdit dañ leen ko tere ñoom taximaan yi taxi urbain parce que dañoo gis ne ñoom li leen metti Mamadou Fofana taximaan yi nee nañu te et nañ si ci ñëwaat ci ci ci ci yéene si si xibaar yi moo di càq-càq yi nga xam ne au lieu ñu yóbbu yem ci yóbbu ko colis léegi dañuy yóbbu ay nit dañu def transport ñoom it euh, yóbbu ay nit ak ñi nga xam ne particulier nga rek benn mambay yor otoom jël numéro dugal ci en ligne am wala nga dugal ko ci benn société bu nekk en ligne koo xam ne ku bëgg client da lay oo jox la ko te te ñoom du ay taximaan donc kaay bi nee na ñoom taxi urbain yi loolu la ñuy ñaawlu Euh, ñu waxtaanee également sa assemblée nationale ministère bi ñu dénk wallu budget euh, ministère bi ñu dénk wàllum ndaw ñi budget am nag yokkute tegal nañ ko si juróom euh, ñeenti ay milliards juróom ñeenti milliards kon nag ñu jagleel ko euh, wàllum ndaw ñi euh, ñu gis naa sa université Alioune Diop bu Bambey découverte bu yéeme lañ fa am ndeysaan bu yéeme benn étudiante xale bu jigéen bu nga xam ne nii dañu ko fekk mu faatu ci ci néegam yéeme na lool loolu ah, tës la uwa la donc yéeme na waaw mën naa ne crise d'asthme tey bi amuloon kenn ku ku ko mën a assister donc premier kii daal loolu la loolu lañ joxe élément yi nga xam ne Euh, moo tukkeegum peut-être ça reste à approfondi pour ñu gën ci mun a am lu leer. alors moo doon euh, présider euh, séance bi vote budget bu ministère de la finance moom Fatou Gueye bu Yewwi Askan Wi nee nañ neexul ba neex mi nekkuloon à la hauteur peut-être c'était pour la première fois moo tax nekkul woon à la hauteur. en tout cas loolu la yéene kaay bi dikk Vox Populi Mamadou Fofana nee nañ Sénégal nag bokk na ci top 10 yi nga xam ne wàllum indice industrialisation ci Afrique ñoo ngi ci top 10. waaw top 10 top 10 ñu ngi ci biir Sénégal classé septième sur les cinquante deux pays avec une moyenne de zéro virgule six six mille cent quarante sept indice bu indice qualification je le conteste. da ngay contesté waaw. ah ñun def ñay jéego ci wàllum. Euh, industrie bi fi def jéego. Ah, industrie Sénégal yow ñaata nga amoon ak ñaata nga fi am léegi. Ah, ça aussi la grande question. ah mais tamit. mais xam nga ko teg sa kaa ne la ah, yenn yi est-ce que newul yenn yi sa waay yenn yi sa bopp la. ak condition yi Sénégal mënul jël bu jël septième mënuñu jël cinquante deuxième nag mënuñu foofa mais reculer ñu fi à def ban bon en avant nañ fi am en matière d'industrialisation. gis ko def ñu dara. tous. waaw foofu na moom man mënul mënul nii noonu. ah mais wax dëgg nekk ay nii bi. mais non léegi nga du yaa ngi informé wu tous les jours. Ah, ah. yow ñaata industrie ñoom ñoo fi amoon avant léegi ak léegi ñaata industrie ñoo fi am. Sodefitex gii du sous-titre ci la bokk. waaw ah? xaw ma ban Sodefitex. non ba bu bu bu kii la bu Louga bi. Euh, Sotex ka. Sotex dañ ko ubbiwaat. waaw d' accord léegi yow Sodefitex mi nga xam te ni. waaw fleuron économie wu Sénégal loo. ak Sotiba anamu. te moom mi ngi noonu di waaj a tëj nee nañ 10 milliards la amee bor ñu ne déet na waaj coton ba léegi anam moom nañuy jëlee fii di ko yóbbu dugal ñu defar ko sol ko ba doyal sànni ñu ko muy ay ay fëgg jaay ñuy jox vax yi suñu jigéen ñi di sol coton ba nañuy jël dem defaree ko indiwaatal ñu ko fii jaay ko suñuy suñuy soxna naan leen ay vax état get la vax euh, Nigéria la jógee vax Côte d'Ivoire Hmm? te yow nga am industrie nga amoon loo xam te ni mënoon na la permettre tey jii nii au niveau continental laa la wax doo fi taxawa kenn ci lu jëm ci fànn boobu hmm? mais lépp naxa ay loolu Ah, kon top 10 bi daal kon yow top 10 bi gëmoo ko. déedéet du ñu top 10 de. bokk ñu top 10 52e nation. waaw mënuñu nekk 50. ah mais mais mais au delà au delà yi tëj sax mais condition de travail tamit loolu est ce que tamit bokk na ci enquête bi wala ci. <laughs> Ah, condition de travail c' est un peu compliqué de franchement. mais ñoom dañoo jàpp ne ñoo jël septième place. dama ne la industrie gii. lii dama ne la ci lan nañ ko nattee. waaw. Ah. indi nii nañ ñu wax. loolu dinañ ci dinañ ci revenir. vox populi moom moo joxe xibaar bi ci wàllum industrie. Vox boobu li ñëwaat également euh, ci euh, sunu gaynde yi Qatar ñun ñu ñu defal ko bagage éliminé ko euh, Qatar ñibbi Qatar Sénégal des ci compétition bi Aliou Cissé coach des Lions nee na Équateur nag beneen équipe la beneen match la. donc nag ndam li jàll na match yooyu jàll na kon ñoo ngi dëgmal beneen match. Ah. te match bu su nekk match la benn jarul xeeb. kay Aliou moom va devenir un mathématicien. parce que. Mhm. Vox Populi moo ko wax après le Qatar le Sénégal face à une équation. Équateur ah dina résoudre jeex na donc l' équation il faudra aussi rectifier sur le plan tactique moom xamal na ko. améliorer bu baax nag ak essayer euh, maanaam génn ci poule yi en tout cas lu mu ci manti doon. tactique bi moom sànq Mamadou Fofana joxe na xalaatam. phase de transition yi dafa yéex. il faut ñu xoolaat ndaw ñi seen chance parce que démb nag ñoo téyewoon affaire yi de. franchement waaw waaw coaching gagnant par rapport ak rentrée mm-hmm. parce que on que Elimane Ndiaye de ce match. déjà mm-hmm. dafa waroon football titulaire. Mm-hmm. parce que déjà c'est ce qui manque à l'équipe Sénégal parce que jusque là Crépin Diatta bi ñuy xaar ak Ismaïla Sarr apport boobu noonu defaguñ ko ci équipe nationale bu Sénégal parce que en plus seen coupe du monde lañ nekk ah mënatuñ xaar fii moom euh, gis nga compétition bi ni muy déroulé. erreur bu ndaw boo def gars yi. Ah amul droit en tout cas Kalidou Koulibaly nee na moom mardi on aura un grand match un gros match contre une grosse équipe. Équateur donc benn équipe jarul xeet moom Kalidou Koulibaly loolu la gis Idrissa Gana Gueye jàpp ne kon nag dañu war a dóor te loolu nag lu impératif la donc impératif dóor dañu war a dóor Équateur mën a continuer aventure bi Idrissa Gana Gueye waaw ah, man la suma bett waaw moo ngi def compétition am solo parce que Idrissa Gana Gueye bokk na ci ñi nga xam ne magu équipe bi lañu mais boo xoolee mook Cheikhou Kouyaté jom ju ñu am ak fulla ak fayda gi ñuy def ci terrain donc da nga naan euh, am âge sa feeñatul doo leen jox seen âge te loolu dafa am solo tamit mhm. porter les couleurs nationales sa waaye loolu xare badar nga ko sa bakkan nga ci war a teg loolu mooy dëgg mais boo footballee trente boo footballee quarante minutes tu as des difficultés pour les <laughs> cinq <laughs> non yow <laughs> yow bu natt sabab si ci si yi quoi alors Aliou Cissé euh, moom nag yëkkati na ay kàddu Mendy nous avons maintenant Euh, nous a maintenu dans ce match. Ah, oui. Voilà. Il a Kalidou Koulibaly quand le Sénégal joue à son niveau moom noonu noonu la jàppale Cheikh Kouyaté moom ce sera la guerre contre l'Équateur ah kay ala accu rek gaynde moom. xare Badar la de xare Badar la de moom. waaw talaatay ndeer la. <laughs> attention défense fébrile au dernier quart d'heure. parce que ah nag loolu nag dañ ko nemmee day am. Ah, ah. Sénégal bu demee ba ci fin bi. yeneen di xam ne dafa bàyyeeku. yu xam nu mu demee noonu flottement quand même. sur à quel niveau. parce que Pays-Bas noonu la woon. waaw ñoo téye match téye match ba ci fin bi. 85 minutes ñu encaissé. deux buts ñu encaissé Abou Diallo je sais pas xaw ma dafa dañ ko yéex a kii parce que moom moo xool ba waa ji demoon. fu muy ñëwee il était en retard. chaque jour erreur de jugement. oui oui ah, donc je crois il faudrait mm-hmm. ak surveillance. moom moom la de nit ki mooy mu taxaw ne nga taxaw ne mais marquage mooy da ngay ñëw ñooxu ko. waaw foog nga day jar sax nga téye fol euh, na la tudd kilote beeg lépp. Ah, parce que loolu mooy marqué ah. aussi. et puis bal yi nga xam te nii day romb suñu défense bi sa waay. loolu il faudrait que ñu ciy travailler. nañ ci bàyyi xel bu baax. en tout cas tribune sport sax tey foofu la génne nee na euh, Aliou Cissé bi ñu ko laajee mu ne lu mën a nekk la du ay génte lu mën a nekk la benn équipe africaine mën na gagné euh, coupe du monde bi te yaakaar na ne Sénégal lay doon. Ah, mais bu ñu waxantee dëgg na. Ah, mais à condition nag ñu revoir tamit un peu. mais da ngay dem di defaraat en même temps di dem di defar. mais maa mbay compétition. wala wala coupe du monde moom amul defaraat da ngay ñëw nekk da ngay ñëw nekk. nga xam ne yow la waaw parce que déjà tu as vu yow démb la ñu joué vendredi mardi ngay joué. entre vendredi ak mardi combien de jours. léegi kon ci fii nga bëgg a def. waaw ah. ko ci mooy loolu ba pare nga aussi il faut ngay réadapté wu. oui li Qatar di footballé bokkul li Hollande di footballé bokkul li Équateur di footballé te li ngay jàpp ne ne sa adversaire moom ngay moom lay indi da ngeen ñëw ba ci terrain bi mu changé tactique de jeu wala dispositif bi léegi yow bu fekkee amoo xarañte gu lay may. nga mën a am lecture de jeu dès les dix premières minutes wala cinq premières minutes mais à ce niveau là boo bloqué woo mais mun na la mun na la indi lay jafe-jafe ah, mais déjà sax première rencontre bone na ko parce que euh, xam nga euh, coach hollandais bi moo ngi koy expliqué ne changement yi muy apporté pratiquement ci en toute fin de match oui euh, c'est ce qui a fait la différence moo def différence uh-huh. donc loolu lecture de jeu dafa am solo nga xam fan nga war a fatt fan nga kii parce que ñun boo xoolee ak Qatar sax tout au début on avait des difficultés pourquoi parce que ñoom ils ont créé de la densité au mmh. niveau du milieu de terrain ba pare suñuy flanc yi dañ ko fatt léegi nag ce qu'il nous mooy il faut dañoo waroon am benn numéro 10 Sadio Mané fa mais Iliman Ndiaye pouvait faire l'affaire parce que il fallait que ñu dugg ci biir ñu leen mën parce que fottoon nañ flan yi gis nga mënuñu woon dem ça c'est le technicien qui parle ay ay analyse lañ ah, ni may analyser kon yow dëggantaan da nga xeeb ni may analyser yow fan yëpp nga gis ni may analyser yow de sa analyse da nga ñu jàll ci non non garaawul xam nga lu ñuy wax chaque jour gis nga euh, euh, Sénégal quoi qu'on mm. puisse dire dañ naan 17 millions de coach moo fi nekk mais tamit xam nga ñu si nekk tamit ku si nekk yaa ngi saan football mais soo ko soo ko yaa ngi pratiqué. te ñëpp tamit posit euh, critique positive la ñuy def quoi moo tax yooyu tamit jar naa bàyyi xel quoi. mais xoolal c' est même pas une critique mais c' est une critique constructive. c' est ça dimbali Aliou Cissé moo yor équipe bi mais ñu ko gën a xarañ ci sport ñoo fa mm-hmm. nekk. daan ku ko gën a xam foog lecture de ci tey Hervé Renard qu' est ce qui s' avec l' mais daal ñëw jàng Argentine gis nga ba mu ñëwee gars yi dañoo jaaxle. très bien tey indi na leen recette boo xam te ni les argentins avaient du mal pour s'en sortir. loolu dinañ ci dinañ ci revenir. maam kii dafa xeeb sama talent ci wàllu football source A. dafa ñëw ci euh, ba tey suñu gaynde yi relancé mais terewul nag euh, gu ñu ndax nag euh, mardi soir dañuy dóor rek jàll wala ñu dóor ñu dem toog trafic passeport diplomatique entre la présidence et le ministère des affaires étrangères un an ferme contre les deux gendarmes ak nag ñaari complices yi loolu moom mooy daan wi ñu teg seen doot daan quoi le soleil foofu la génne suñu gaynde yi fu mu nekk nii wanewaat nañu seen bopp démb bi ñu jàkkaarloo Qatar fas yéene jàkkaarloo Équateur jogante bii di ñëw le quotidien victoire suñu gaynde yi la ñëwaat ba tey Abdoulaye Dia homme du match la ñu ko def euh, Sénégal nag kon nag fu mu nekk nii final la final la jëm parce que bu ñu waxee final la jëm maanaam jogante final am diggante euh, Équateur mardi lay doon bu ñu ko dóoree nag et puis mën a avancé Ibrahima Bari PCD de Vélingara sur sur le troisième mandat moom euh, moom Bari moom fu mu nekkoon gëj nañ ko dégg de ah moom dafa génn wàcc tiruwaal yi de ah yàlla baax na da ngay ay politiciens yi yàgg da ngay jékki-jékki ñu génn si trois li <laughs> libération euh, trois bi pour l' en tout cas Afrique na mi ngi euh, équipe bu bu koy représenté ci euh, compétition bi coupe du monde bi démb la ñuy doog am ndam lu ñuy toll ñetti bal ci benn en tout cas foofu lañu ñu génne enquête ba tey moom it génn ci coupe du monde bi Sénégal sunu gaynde yi conquérant noonu la ko bindee waaw ate ñu jàll ci euh, direct news euh, jëwriñ bi ñu dénk wàllum euh, éducation nationale en tout cas démb andi assurance moom wala du démb sax en tout cas assurance moom Cheikh Omar Anne barki démb la ah mm-hmm. assurance ah mais mais mais mais non yow tegal sa saak tegal saak bi Amina Gueye ñëwal nga nuyu fii nuyul waa plateau bi yéen a ngi fàttaliku Amina Gueye ba xam nga ne moom ñoo démarré doo matinal bi en 2015. am tegoo fi da tegoo ko fenn Amina Kaay Gueye Amina Gueye Kaay. Amina Gueye Kaay. moment boobu moom du foofu na nekk fi woon. Eh, demal ne dama toog ne leen Amina Gueye. Amina Gueye boobu ndeysaan Birame Touré yaa ngi woon sa banlieue ba. tund ba Amina. <laughs> Oh là là, mais Belgique, ça bien. Merci beaucoup, c'est très ah, gentil. Ah, toi, Merci beaucoup. Bien, monsieur. Ça mais je vous regarde tous les jours nag Kabla. Ah oui. Tous les matins. yow bi nga commencé xam naa ne yaa ngi ci plateau bi euh, le plateau c'est mon bébé quoi. c'est mon plateau donc je regarde tous les jours sincèrement. Oui, tout à fait. Yacine tey dafa daw. daw liggéey la mu ni Yacine Seck. <laughs> yaa ma jëw ko tuuti daw liggéey la ma jëw ko. ah c'est pas mais yaa ngi ci commentaire yi de ñëwal lekk. Ah, en tout cas. non yaa ngi ci. maa <laughs> xam ne Amina Gueye Birame Touré c'était autre chose. ah Birame Touré Amina Gueye. gis naa ko gis naa ko benn bis muy. jékki-jékki mu mais waroo ma dugg sama paal di ma saaga. defante rek la mu dooma saaga jaay tegoo ko fenn même l'essentiel l'essentiel yaa ko lancé ah waaw waaw ma lancé l'essentiel émission matinale bi et tout ça voilà moom benn Maxtaar ah andem si yàlla si Momar Sène voilà ñoom ñoo ko démarré woon amiin amiin amiin dem si yàlla démb dama bi ma ñëwee fii la dernière fois dama ñëw dugg ñoom ñaar laa njëkk xalaat Ndiaye Dos Momar Sène après je me dis àdduna du dara quoi may fàttaliku ni ñu doon nekk Ndiaye Doslé samedi moo doon journal. engagé ku bëgg naaw da ngeen ne non non tonton Ndiaye il faut nga jàpp si amul problème vas-y dinaa le journal je vois mais bilaay bu baax ñu koy fàttali man moom sama xarit la woon eh, eh. ku yëwénoon si xam-xamam wallaay yéwén généreux dans l'effort euh, di partager savoir-am expérience bu mu am mhm. ñu koy fàttaliku bu baax donc di ko ñaanal yàlla suuf allahumma amin xare ko ci àjjana mais Amina on est treize heures ah gis la tey plus que man nag sincèrement ah parce que fii moom sama kër la en ah, plus des émissions comme matinale bi ak l'essentiel je sais pas dama am benn euh, affection <laughs> bu ah bu particulier ak je sais pas ba léegi nii damay toog di ko seetaan tu vois damay topp affaire bi di ko suivre comme si euh, sama yëf la en fait tu vois loolu la dama am benn affection bu bu bu grave pour pour émission yi également ci Africa euh, Afrique Média Afrique Média <laughs> voilà seen correspondante là donc oui damay damay def ay kii non Facebook moom waaw moom moom. très oh, man jour bi laa ko malheureusement. jour mhm. boobu noonu dama ci tombé. muy kaas rek ma ne ko ah man sama jigéen bi ku ko tooñ tamit. mais gars yi kat dañu doy waar. Ah. mais dëkk bi day ah. rek yow tamit. Eh. Eh, mais mais réseaux yi loolu la. la fi ñu la fi ñu ko xool. Ah, mi mel noonu. moom fu mu nekk wax dëgg yàlla. mooy am de xool. ah fi nga fii ngay xool par force. waaw <laughs> may ayca bés mu wax. bés yéen kaay ah, dafa ñëw ci mondial Qatar Sénégal démb nag Sénégal dafa làpp Qatar ñetti bal ci benn Qatar ñibbi na Qatar wala di ñaan euh, tubaab dem na Paris. kon nag Qatar des na Qatar loolu la ñu ne meeku démb des nag benn équation que mardi la. Mhm. mu nekk moom la ñu war a jàkkaarloon équation boobee nag faw ñu trouver. solution bi lu ko may rek ñu nit Sénégal ñu bisi Sénégal en tout cas on a des arguments à faire waaw nee nañ nag Iliman Ndiaye sama doom baay bi parce que ñun Ndiaye la ñu sant ñun mu Ndiaye ni fu ñu dem wane suñu bopp wane na boppam démb gars yi dañ ko doon laaj di ko réclamer moom Ilimane Ndiaye. ñun li ñu metti woon nee na li ñu metti woon yëpp si ah Ndiaye la fan. Ndiaye Ndiaye la <laughs> mais kan moo ko doon tooñee loolu sonal ko lu wax rek. Ndiaye bi moom Ndiaye bi man Fane Abdou Ndiaye mun naa d'accord loo euh, ah. d'accord mais euh, ak sama waa ji. kii eh. nga xam ne bu ñu. Albouri Ndiaye Ndiaye ah. Ndiaye. yow man man man sama Ndiaye réel bi la de. Eh. original OG. bu baax bi laa yor Ndiaye. Ah, kii surtout Bouna Albouri. <laughs> sama yow alal li bëgg alal li bëgg nañ ñëw rek. <laughs> en tout cas lu ñu metti woon si Ndiaye Dragon moom Elimane Ndiaye mi fajal nañu ko. dëgg Ndiaye Dragon yow. lu ñu metti woon yëpp si Ndiaye Dragon bu ngeen ñëwaat. kañ ñoom foofu mu dugg <laughs> fa trafic passeport diplomatique euh, ak nag mbirum Sine euh, Barax yooyu en tout cas ñaari militaires yi nga xam ne tuddoon nañu leen si ku si nekk euh, daa jàppale nekkoon un an ferme la ñu leen dóor ñu dem ci 24 heures mu ñëw ci lu am solo kan mooy rey ci loo xam ne ni da ngay rey mu neex la rek nga dem tey du am benn suivi du am benn suivi ci enquête yi li ko waral moo di nee nañu 1960 benn gendarme bu ñu reyoon euh, ci élection municipale yi France mujjewul euh, fenn 2012 mm. Sénégal enregistré deux morts sa Podor Saint-Louis ak nag ay violence yi nga xam ne moo fa metti woon euh, contre candidature bu Maître Abdoulaye Wade France événement mars 2021 14 manifestations manifestants yu nga xam ne ni dañoo faatu France ñu dem ci 13 euh, juin deux mille 2022 euh, François bu yàggul bërki dem boo Ndiaye faatu na ñu ngi ci enquête li coow li polémique bi bari woon na ci lool France Didier Badji. mooy barki démb. bu barki démb boo Ndiaye Didier Badji moom gisaguñ ko. ñu ngi koy wër. Fulbert uh-huh. sam la ñu gis. néewam bi nañ jàpp ne moom waaw néew bu ñu gis carte manuelle. wala mën a def ñu ne néewam la en tout cas ay proche am nee nañ peut-être t-shirt bi lañ ko mën a identifier mais corps bi nekk euh, si état de décomposition très avancée peut-être. autopsie bi dina xaw a compliqué. Uh-huh. mais ñëpp li ñu seetlu moo di constat mooy te 24 heures def euh, point d'interrogation mooy ñooñu ñëpp bu ñu faatoo après du mujj fenn. Sénégal polémique ñu wax si tuuti et puis après ñu jàllaat ci la. en plus c'est c'est c'est incroyable c'est-à-dire mm. quand soo soriwee Sénégal ngay seetaan dañuy parfois dañuy tiit. parce que ñun suñu yeewee la première chose bu ñuy def bu ñu paree lu ñuy def yëpp wala peut-être le soir dañuy seetaan revue de revue de presse. Mm-hmm. on rate pas au fait de la revue de presse parce que loolu moo ñuy permettre ñu jël la température un tout petit peu du pays mais dañuy tiit. Ah. ay rey nañ ko fii de na fii parfois da ngay da ngay tiit parce que tu te dis que dëkk bi plus les années pas affaire bi di changer di changer et ça se dégrade au mais rey gi moom vraiment ah man j'ai été très choquée surtout la fille là qui a été euh, bu ñu rayoon si euh, wari fu muy jaayee fu muy defee et la fille ñoo dañu defandoo lycée ah j'ai pleuré chez oh. moi parce que début bi xaw naa ko xàmmee tout après ma dem sama waa classe ne ma ñu ma defandoo lycée ne ma si on a fait le lycée ensemble et effectivement bu ma defee recherche on a fait donc j'ai j'ai pleuré parce que affaire yi dafa metti quoi donc doy na waar daal dëkk bi mais bon on espère que yàlla baax nañ moytu rek ah, mooy bi moom mënul ñàkk moom. Ah, mais yàlla baax na mais tamit Lamine naa wax tamit dëgg la yàlla baax na waaye tamit il faut tamit des actions. il tamit ñuy def des enquêtes yoo xam ne dina mën a aboutir ci quelque chose. tamit ñuy sanctionner tamit mais yàlla baax na comme ça ni tamit à la limite on le touche en danger yàlla baax na ñëpp dañoo nekk si danger. Ah dinañ ci dinañ ci dinañ ci dinañ ci dinañ ci dinañ ci dinañ ci. le week-end le ministre de l' intérieur mi ngi woon sur le terrain parce que boobu dañoo amoon ay checkpoint yu ñu doon def euh, ci diggante police ak gendarmerie. donc loolu lu am solo la même hier également dans gis naa ne ñu ngi woon encore euh, di def li ni mel donc on les encourage par rapport ak loolu liggéey bu am solo bi nga xam ne euh, ñu ngi koy def tout le temps pour population yi mën nekk en sécurité mm-hmm. comme tu dis mm-hmm. euh, mën a nekk ci jàmm donc en toute quiétude en tout cas on vous encourage nos forces de défense et de sécurité jaajëfal leen yéen ñi nga xam ne yéen ñuy topp waaw waaw maa leen di jaajëfal mm-hmm. dama am festival de jeux de société Douta Seck donc <laughs> c'est gratuit amul amul fay amul dara donc maa ngi invité ñëpp ñëpp ñu ñëw Douta Seck 2 3 décembre. de jeux de société day am exposants yu jóge Europe yu jóge de jeux de société. nit découvrir ko indi seen doom yi seen yaay parce que jeu de société moom pour ñëpp hmm. donc maa ngi woo ñëpp ñëpp amul on va s'amuser à Douta Seck pendant trois jours. eh waay eh transition eh, ah, Amina kon yow daal sunu métier bi daal da nga ko teg ci événementiel. Amina international. Amina danañ nuyu fi ñu ko def événementiel. est-ce que les porteurs d'affaires ah eh, man lépp laay def. <laughs> toujours ah. Amina lépp lépp je je laisse rien mais bul bàyyi presse bi non bàyyi ma presse bi. parce que samedi samedi dimanche laa ñëw samedi maa ngi woon ambassade du Sénégal dañu forum. maa ko doon présenté je fais beaucoup la présentation. aussi Super. d' événements ça je le fais. fàttali ñu ni nga daan titre ma xool bu eh, eh, non <laughs> non def nañ français pare titre ma rek ma xool en attendant. en français en français non non yow kan ngay wax Amina Gueye. Euh, mën a mën a dinaa sax. Amina Gueye Amina Gueye Amina Gueye nga man deful mise en bouche ak ça c'est un, c'est une ville. Bentegné. OK. Bentegné. D'accord. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition euh, euh, de, de, de... Je sais pas joxal heure bu la neex joxal heure Belgique joxal heure Belgique joxal heure Belgique man déjà may démarrer man vendredi laa ah, wax. yow vendredi nga wax te tey la tey la ah tey la man dafa réer parce que ma ñëw ñu matinal laa ma leen matinal mosul am samedi attention ah. xam nga bugaan mu. jàmbat ba sonn. Eh, jàmbat ba sonn. samedi mosul am mm-hmm. mais non non maa ngi est dans le bain il faut nga euh, nekk ci de il faut nga nekk ci de il faut sax mu nga ñëw. il nga ñëw fi nga defal ñu benn gars yi dañoo sa sa sa sa journal sa édition. koo namm ay ca Fatou Fatou euh, nee na Mame Mbaye aay nga tor de mën nga def waaye football bi bàyyi ko <laughs> jërëjëf Fatou Gadiaga. donc sama noonu ndekete. mais attends léegi nag leer na. Ah? football rek. non dama àndul sax. te pourtant maa yoo xam ne nii yu pertinente. récemment xam nga lu ma waxoon nee na ma doon def karaté et jusque là man nee naa ko. moom la wala def neex yàlla am man am naa passeport skiaay. nekk combattant. xam nga sëñ si dem si yàlla si maa ngi nekkoon deux hommes. xam nga man buñ la nee def naa taekwondo mën nga ko. te nga ne. ah vraiment. yow gis nga ay Amina. yow gis nga ki nga dendee rek. def jaraaf ayca gën a fise xibaar yi moo di affrontement bi nga xam ne soo moytuwul dana am sa benteñe benteñe mi ngi féete sa commune bu Diass la ko waral moo di coowal suuf gu nga xam ne fanweeri hectare moo jur coow la Alioune Badara Sonko lañ ci àndal ci biir xibaar yi